salaamaaleykum mbooloo mi. te mu rëy lañu am tew fii tey ngir becc leen kàddu yu néew ci lii nga xam ne ñi bokk coalition Sonko président ñoo ko dëxëñ ngir tabb kii di président Ousmane Sonko mu doon seen candidat waaye comme ñoom moomuñu ko ñoom rekk waaye mu doon tamit kandidaawu askan wi comme ni ko euh, nu waxee. gis ngeen ne bi ñu annoncé datu le 30 bi ba léegi li ci jot a xew yépp euh, waaye ñépp xam nañ ne président Ousmane Sonko niveau de résilience am ak résistance am daf ko mujj a tuuf wala wàll ñi nga xam ne moom lañ àndal ba tax na euh, lépp loo ñu yaakaar ne dinañ ko def pour xaññu ko dinañ ko soppi ba nga xam ne maanaam euh, faiblesse boobu day mujjee nekk force moo tax mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen fi teew waaye mbokk askanu Sénégal waaye mbokk aji bëgg réew yi ñu leen di wax les patriotes ñun waa coalition Sonko président dañu am mbëgte ak yëg-yëg bu mag ngir tab kii di Ousmane Sonko mu doon candidat coalition Sonko président ci e jongante yi ñu daj na nañu bu baax nak dayo bi nga xamne li mom la am ak limi mandar gal ci askanu senegal waye tamit tego nañu ko ci suñuy mbag wane ne nga xamne moy président Ousmane Sonko di panafricain ñëpp xam na ni mu mel ci Afrique ndax dimension weesu na Sénégal mën naa ne weesu na Afrique te tey ku gis dimension bi dayoom moom fi mu toll ak candidature fi mu yegg ci àdduna bi xëy na kenn lañ ko ci mën a méngalee koo xam ne yeggoon na foofu mii Barack Obama mu nekk patriote convaincu maanaam aji bëgg réew bu mat sëkk waaye mu nekk ki nga xam ne mooy mandargaal Afrique gi nga xam ne dañ ko nalawal bu yàgg te Afrique googu yeewu fas naa jël ëllëgam téye ko dox jëm ca kanam bokk ci continent yi ñu gën a naw yi gën a ñoŋ ci àdduna bi kooku may bëgg a wax mooy le candidat Ousmane Sonko ñi ko gën a jege di ko wooyee PROS kon nag ñun ci fidélité honnêteté sincérité ak loyauté moo tax tey ñu jàpp ne xeex bi ñuy xeex ngir senegaal doon Sénégal gu jóg senegaal gu gën senegaal gu ñoŋ senegaal gu raw ay maasam doon na xeex boo xam ne mënu ci dellu ginnaaw benn yoon te mënuñu ci yox-yoxi ah xeex boobu nag suñu koy def suñu xel mënul ñàkk dem ci ñi nga xam ne seen bakkan dafa rot ci yoon wi ndax ba ñu ko tàmbalee ba léegi te ñoom Mariama Sagna ba fii ñu yegg si tey la ci rot ëpp na juróom benn fukki nit ñii ci événement mars 2021 ñii ci événement juin ak euh, ak ak ak événement euh, juin 2022 ak événement juin 2023 ah ñooñu nag dañuy xalaat seen ay njaboot seeni wayjur seeni soxna seeni rakk waaye di leen biral ne duñu leen mës a fàtte te xeex boobu ñu doon xeex ba loolu fekk leen ci nañ gëm ne ñun dinañ ko wéyal ba am ci ndam ngir Sénégal doon Sénégalu dëgg ngir Sénégal doon Sénégal goo xam ne li ñëpp bokk ñëpp jot suñu xel mënul ñàkk dem ci lu ëpp junni nit yi nga xam ne dañ leen a nëbb jant bi ñu nekk ci kaso yi nga xam ne nguur gi moo leen fa dugal ci ak jaay doole waaye ci gëm gu ñu gëm seen réew gëm ko benn projet te ñooñu ñu mën cee lim kii nga xam ne moom lañuy ñuy tabb tey muy suñu kàndidaa di président Ousmane Sonko ak mbooleem ñi mu àndal ah wax fa dëgg yàlla nag li nga xam ne fas yéene nañ koo def mooy génne Sénégal ci guuta gi mu nekk waaye génne Sénégal ci loxo yi ko ŋànk ruut ko ci suuf ji ngir bañ mu jëm kanam ñoo xam ne seen intérêt képp moo leen fi nekkal ba tax nañu tabb seen benn candidat boo xamante ne nii dañ cee bëgg jaar forcé wéy ngir di noot sénégalais yi ngir confisquer votu sénégalais yi maanaam ngir nangu bëgg-bëggu sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg tànn kenn koo xam ne jàpp nañ ne bu ñëwee moom mooy delloowaat Sénégal maanaam li wax jot sa réew mooy tax nit ñi jotaat seen réew mooy tax nit ñi mën a jot ci li ñëpp bokk loolu nag Euh, bu ñu koy def ba tax ñi tab suñu candidat bi dañu koy wër ci li nga xamante ni moy constitution wu Sénégal mi nday sart réew mi nga xamné mo teunk lepp ndax constitution bobu ci poñam bi ñuy wax 4 ak 29 manam article 4 ak article 29 euh, ak L 120 bu constitution bi ak L 121 bu code électoral bi mom mo wax naka la tabé candidat té ñun ñu tànn ci bi nga xamné coalition bu ëmb mbootaay gu ëmb ay kuréelu politique ñoom ñoo koy tabb ngir mën a nekk président de la république ah waaye yamu ñu ci loolu parce que dañu jàpp ne président bi dafa war a nekk ku légitime maanaam dafa war a nekk koo xam ne nit ñi jox nañ ko bopp ba pare nangul ko moo tax ah ñu jàpp ne euh, euh, loolu di cérémonie d'investiture bi dañ ko war a def ci maanaam yamale waaye dañ ko war a def ci anam yoo xamante ne nii kooku dinañ xam ne kuy respecté état de droit la waaye ki respecté suñu ay institution la waaye tamit dina gis am gis-gis bu soree sori ngir suñu ëllëgu réew mbokk yi président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne parti bi mu bokk di Pastef ñi naan ex Pastef dañu ko investir investiroon balaa dara di xew te ba ñu koy investir maanaam ba ñu koy tànn mu doon suñu candidat moom képp moo nekkoon candidat keneen yëkkatiwul loxoom waaye yamuñu ci loolu ndax ngir bëgg mu nekk candidat boo xamante ne ni lépp dafay jaar yoon te mu nekk candidat boo xamante ne ni am na légitimité dañu wax kuréel gi nga xam ne moom mooy ARP di haute autorité de régulation du partie Quand ñuy le euh, monsieur constitutionnaliste ko ñu investiture suivre les textes du parti ah fait consulter les responsable du parti L'année que doon nous dañ responsable parti d'accord avec le président Ousmane Sonko doon ci élection 2024 résultat yooyu nag nga xam ne am nañ ko mu koy woon lool lool suñu njort moo doon wane ne kii di président Ousmane Sonko wax dëgg yàlla lu koy teree nekk candidat yàlla sàkk ko ci mim réew bañ ginnaaw ba ñu ko defee candidat waaye senegal yi defal ko seen bopp candidat dama bëggoon rekk wax ñaar fukk ak juróom-ñeent kuréeli politique yi nga xam ne ñoo décidé bala dara xew ndax bir nañu ne ay fukki fukki kuréelu politique dinañ ñew bala yag dara ñom ñom ñoo xaatim li wax ne tan nañu ki di président Ousmane Sonko mu doon sen mbeur ci jongante yi ñu dëjmal mi le 25 février 2024. ñu man ci jital kuréel guñu wax mouvement pour une citoyenneté engagée andu nawle bi nga xam Euh, comme dañ fi am ay titres yu bees kii di Mamadou Lamine Diante di ex candidat moom moo ko jiite am na kuréel gu ñuy wax ànd sàmm sama réew ànd sama réew muy ANSAR ku ñuy wax Momar Ndiaye moo ko jiite am na mouvement pour la renaissance républicaine di M2R kii ñuy wax Ousseynou fay moom moo ko jiite am na manko ci dëgg nga xam ne El Hadji sise moo ko jiite amna APJS ñu koy alliance patriotique pour la justice et la solidarité nga xamné Ousmane Thiouf moko ko amna force citoyenne bi nga xamné la Lyon Maïmouna Bousso moko ko Sénégal en tête Sénégal ci kanam euh, Mouhamadou Moustapha Mbaba askan wi doyen Madjay mouvement de la réforme pour le développement social du MRDS nga xamné Mohamed Sall mo fi taxone légui ni di wax ci euh, coalition le peuple l'homme du peuple nga xamné mom moy nous ko mom dafa coalition le peuple manam mom dafa jël askan que nous def ko def coalition coalition waaw dafa mbong lool macha allah ah Sénégal na pas di ah, maître Mamay Diokou am tamit cadre de réflexion pour un développement intégral nga xam professeur Amidou Dat moo ko jiite am front national bu wuuteeg front national bi ñu xam nga xam ne Ali Guèye moo ko RPS di maître Abdinar Ndiaye Amna IFD, Union pour le fédéralisme et la démocratie bu professeur docteur Mohamed Tete Diédhiou Amna na wareef wi nga xamné ne Seydou Gissé Sall moko djité. Amna bi nga xamante ne nii nga xamné ne nga xamné euh, Serigne Gueye moko djité. parti conservateur du Sénégal bu euh, Aliou Cissé ñom grand mouvement citoyen nga xamné ndiaga Njaga la amal pour un événement bu am solo bëggoon ñu tew ci waye ni fa démé la amna euh, farlu nga di un allié de première heure bu Serigne Bassirou Mbacké union des forces patriotiques bu doyen maître soxna waye ci bir dafa am aussi comme ex Pastef dafa am dafa am ay ex candidat té man nañ ci lim ki di biram Souleye job, bok ci candidat yi nga xamné ne dañoo renoncé ngir jàppale candidature président Ousmane Sonko am na gi comme guuy lañ koy woyé guuy Sagna di ex candidat amna na Abbas Fall di ex candidat benen ex candidat mom jarul lim waaw El Malick lañ koy wax mais ci ñi nga xam ne signataire daf ci am koo xam ne mu mënu ci woon ñàkk bokk muy le mandataire de l'année wala du siècle ñu koy wax tonton Ayib <laughs> mooy ñi nga xamantene ni officiellement dañoo taxawal coalition bi di Sonko président 2024 désigné qui di président Ousmane Sonko mu nekk euh, sen mbeur ci jongante yi di ñew té ngeen xam ni président Ousmane Sonko comme ni ko euh, euh, article 1 bi waxé fi ci li nga xamné PV bi mooy monsieur Ousmane Sonko mi nga xam mi ngi judd ci 15 juillet 1974 ca Thiès nekk sénégalais xaqan amul beneen nationalité waaye tamit euh, nekk ki nga xam ne mu ngi am ay àq ak yeleefam dara manqué wu ci moom la déclaré officiellement candidat ci euh, élection yi ñu dëjmal ah lii nga xamné moy mooy euh, bi xamné teunk nañu ko moy mandargal investiture bi ah dinañ ko dëxëñ ci benn PV boo xamante ne ni candidat yépp a koy signé su ko defee dinañ ko tas ba ñëpp gis ko donc mbokk yi tey ci bés bi mujj ci atum 2023 31 décembre 2023 ah ci lañu ñëw ngir fësal leen lii nga xam ne mooy mandargaal ne président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu matalee lépp li ñu ko laaj incha allahu rabbi dina dem ci élection yi euh, te am nañu yaqin ne bu ci demee premier tour mu làbbali gaa yi sànni karawaas bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di leen jaajëfal bu baax baax jërë ngeen jëf euh, jërëjëf El Malick Ndiaye ci kàddu yi nga xam ni biral na ko mu di texte bi nga xam ni moo di.